vraiment Ndiaye mm-hmm. si nga xam ne depuis bi phase yi commencé ba léegi chaque jour ñoo ngi déggante vraiment lépp li nga xam ne war na ko def na ko ci côté administration monsieur le maire lépp li nga xam ne soutien bi nga xam ne apporté na ko mat def na ko léegi xem na lool li nga xam ne jàppale na ko ODCAV di leen wax ngeen gën a góorgóorluwaat di gën a ñaaxaat ndawi département bi nga xam ne kat jeunesse dafa am solo ci département dafa am solo ci ab dëkk kon ay jeunesse lii rek la am mooy sport dafa bokk ci jeunesse kon tey jii jeunes yi bu ñu mobiliser woo di football phase départementale yi ñooy indi ko fii ci bu Sadio kon yaakaar naa loolu lu am solo lo te xam ne kat ren mooy deuxième édition ñu footballé phase départementale kon monsieur le maire nee mi ngi sant la parrain Serigne Fallou Mbacké ak délégation bi nga xam ne moom la ànd ak ñu sant moo conduire délégation bi. ñu ngi koy nuyu de passage di nuyu góor jigéen mag ak ndaw di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu si côté sport que ce soit si côté région bi la département bi la ba ci zone yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo coiffé le département de Mbacké ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax daleen ak jàmm monsieur le maire mi ngi leen dalal seen dëkk ci seen dëkk la jërë ngeen jëf. La zone de Sadio dirigée par euh, monsieur Kobandour ak ñëpp ñi nga xam ne ni ànd na ak ñoom ci liggéey bi ñuy def ñu koy féliciter di ko encourager parce que non seulement dalal nañu à Sadio pour ñu tëgg phase départementale yi ci tëgg bu mucc ayib mais aussi soutien à chaque fois ñu ngi koy gis ñu ngi ñuy woo di ñu nemmeeku di xool condition yu nekkee kon ñu ngi koy remercier ci loolu di remercier toute l'équipe de Sadio di remercier aussi particulièrement le maire de la commune de Sadio monsieur Diomaye fay mais particulièrement aussi dinañu remercier le maire de Taïf monsieur mbaytin maire de Taïf au conseil des collectivités territoriales di la jox suñ doléance aussi boo xam ne ni xaw na yàgg rek ñu jéem a ériger waat euh, la commune de Taïf en zone loolu bokk na si li nga xam ne ni lu ñu la waxoon nañ ko daaw dañ koy waxaat ren parce que bu ñu sañoon du ñu sotee Taïf ñëw saajo donc di di créer zone bu ñu sañoon Taïb zone lay doon Sadio zone lay doon ba peut-être feneen parce que Mbacké fait partie des départements yi nga xam ñoo gën a néew ay zone li ñuy tuddee zone rurale ce n'est plus des zones rurales zone rurale amatul fenn parce que li xew Mbacké moo xew aussi Sadio moo xew Taïb moo xew Touba moo xew partout dans le Sénégal donc loolu moom ñu la koy ñaan loo si man te def ko ba zone bi taxawaat di nuyu population bu Sadio di nuyu population département yëpp ci sama kaddu ci kaddu conseil départemental ak délégation bi àndal ñu lim ko léegi ñu ràññan ci kilifa yi am solo ñi ngi ñëw di am mbégte ci bi ñuy parrainé final départemental bi waa ODCAV jagleel ñu ko ñu ci am mbégte lool di sant euh, tous les dirigeants de l'ODCAV de Mbacké ci xalaat yi am solo yi nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci wàllu sport et particulièrement ci football ndax football sport la boo xam ne nii mooy sport waa ni ñu koy waxe muy lu am solo. département bi bëgg ko loolu xale yi bëgg ko loolu kon ñun bi yàlla dogalee tamit suñu euh, wàllu liggéey ñu dénk ñu lu bari ci wàllu sport euh, danañ jéem lépp luñ man rek pour jàppale xale yi ci football wala sport nekk na vecteur de rassemblement et d'union et de solidarité kon kat la boo xam ne ni kat bu am solo la ci jeunesse bi occasion yi xam ne nii walla rendez-vous xam ne nii euh, buñ sañoon toujours di ci participer ndax lépp luy dajale jeunesse bi di leen dimbali di leen promouvoir loolu bokk na ci liggéeyu collectivités locales yi kon ñu ngi partager ak ci bi nga xam ne lañ assisté fii tey muy fête la jeunesse ñu fi fii euh, taxawaay bu am solo ci population Mbacké yëpp rawatina waa Sadio waa Taïf kon nañuy sant bu baax waa ODCAV di leen gën a loxo incha allah ci lépp lu ngeen nekk rek incha allah parce nañ ko yéene ànd ak yéen bu soobee yàlla xam naa sax bu ngeen ko permettre man na maa waxaat ne déwén allah danañ jëlaat paana bi fekkee ne soxla ngeen ko incha allah loolu moom pare nañ pour jàppale leen pour accompagner leen te allah bu déwénee danañ gën a yokk moyens yi fekkee ne parrainage bi def ko ci départemental en tout leen di bu baax. di féliciter équipe bi nga xam ne moo gagné muy équipe bu Jokkoo di féliciter évidemment tamit équipe euh, dëkkandoo xam ne kenn démérité wul li am solo mooy c'est le sport ci la jeunesse qui a gagné c'est l'union des cœurs la solidarité loolu rek jar na ñuy taxawal bis yi mel nii kon ñu ngi sant bu baax la maire de la commune de Sadio ci taxawaayam. di sant commune nu Taïf son maire Mbaye Tine ci taxawaayam ci bis xam ne ñoo ko bokk ñu bokk arrondissement bi ñu bokk département bi kon am nañ mbégte lool ci final bi nga xam ne noonu la déroulé ñu ci dans le fair play di xaritoo ci lépp loo xam ne ni sofel la ak jàppalante ñu àññu fi kon ñu encouragé baax la jeunesse. den wax ne lii moo am solo ñu bokk ndey bokk bàyyi ñu ñëpp ñu joxante loxo fa seen liggéeyal département bi ndax département bi du président conseil départemental rek moo moo ko war a les maires am nañ ci li ñu war a def kon nañu leen tàllal loxo ñoom ñëpp tàllal loxo la jeunesse département ci liggéey bi nga xam ne war nañ ko liggéey département bi ndax duñ mën a dem te ànd ñoo xale yi te lépp lu ñuy def xale yi tax ñu di ko kon maa ngi jeexal sama kàddu foofu ci turu délégation bi ma àndal yëpp di santaat yàlla bu baax di santaat waa ODCAV ci seen taxawaay ci effort yi ñu def yëpp ndax xam na ne comme ni ko président di ODCAV waxee léegi doon lu yomb waaye nag ñu ñëpp góorgóorlu lañ kenn ku ne jàpp ci ba final bi am ndam. li am ndam mooy département bi mu nekkoon une très de la jeunesse kon ñi ñaan yàlla ñu fekke ko ne ngeen déwén incha allah euh, ba lépp luñ mënoon ren man gën a man déwénee lu ko ëpp lépp rek pour feeñal suñu jofeel ci jeunesse ak ci sport